أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ànd ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala toll ci suratul baqara di jël tey aaya 204 ba ci 207 ñaar téeméer ak ñeent ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar ñeenti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhaanahu wa taala mu ngi ñu ciy jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy at tahzir min al igtira bi fasahatin wa bayaani rajuli ida lam yakun min ahli al imani wal ixlaas sunu borom allahu subhanahu wa taala mi ngi ñuy moytandikuloo di ñu xamal pour ñu mën a ràññee mën a moytandiku wor wor goo xam ne mi ngi bàyyeekoo mi ngi soqeekoo ci waaju nga xam ne wax rekk la man borom bi subhanahu wa taala di ñu wax ne waa jooju nga xam ne dafa mën a wax su fekkee bokkul ci ñi gëm yàlla bokkul ci ñiy sellal nit ñi nañ ko moytandiku loolu tey di nga ko mën a jox ay misaal ci ay nit yu ñuy tuddee ay politiciens tey politiciens yi ci àddina bi kenn dàqu leen a wax boo leen di déglu da nga yaakaar ne mun na ñoo soppi àddina bi def ko aljanna moo tax sunu borom subhanahu wa taala dinu moytandikuloo nit ñu nga xam ne dañuy wore ci seeni wax su fekkee bokkuñu ci ñu gëm yàlla kii wax ak yow xool ko bu baax bu fekkee bokkul ci ahlil iman wal ixlaas mooy tëndiku su dul rek loolu dana la dugal ci kàmb ndax dina la topp di wax di wax di wax di wax ba nga defal ko lim bëgg fekk daf lay war ñaareel ci li ñuy jëlee ci ñeenti aaya yi mooy sarru naas man yufsidu fil ard birtikaabil jaraim mimma yusabbibu fasaadan wa xilaakan linnaas wal mawaashi am na nit ñoo xam ne ci nit ñi la ñu nekk kenn gënu leen a yées kenn gënu leen a bon dañoo bokk ci ay nit ñu nga xam ne yàq suuf moo leen tax a jóg ki def ay bakkaar ki ñëw ci société tabax dansine tabax fa baar tabax fa barab bu ñuy moyee yàlla comme genre hôtel wala auberge kii ci ñiy yàq suuf la bokk ki ñëw cib koñ cib dëkk tabax fa usine sàngara soo ko ne usine bi lu tax nga tabax ko mu ne non man dama ñëw ci koñ bi fekk kenn nit ñi liggéeyuñ jeunes yi liggéeyuñ ma créer leen ay emploi te loolu la ñuy wax bu nekk boo demoon société bi tabaxal mees bi bi ñuy defaree mees bi nga leen yéen lan ngeen yokkal société bi ñu ne la non fi mu nekk nii ay millions ngi nit ñu ngi liggéey ci société bi ay père de famille ay père de famille fii la ñuy fayeeku ñun ñoo leen yoral seen salaire dañ lay dañ lay wax di wax ba jeunes yooyu sax nga xam ne ñoo fay liggéey boo bëggoon ne nañ toj usine bi ñu ne la sunu bakkan lañ ci teg parce que ñoom ñu ngi jàpp poñet bi fay génn dërëm bi ñaar dërëm bi fàtte nañ usine bi dafa ñëw pour détruire l'islam parce que lépp lu mu fi def bu fekkee usine sàngara la sàngara lan lay yàq xelu doomu aadama day yàq l'islam bu fekkee usine mees bi la day tax jigéen ñi dootuñu muur seen bopp yi ci ñaar yooyu nag laa yemee yem laa ñemee yem yi ci des seen xel moo la koy moo leen koy yeggalil wala buñ ci yokk ñu ne loterie nationale ñaata nit ñoo ciy liggéey xam ngeen ko ci Sénégal léeg-léeg sax nga romb ab jàkk ñu ne la jàkk ji waa loterie nationale ñoo ko tabax benn boroom xam-xam daf ñuy nettali loterie nationale bi ñu ko bëggee samp ci Sénégal sëriñ sëpp dañoo bañ ne kenn du ko fi def parce que baaxul dafa xaram wala lenn ci sëriñ si bopp dañoo bañ ne duñ ko fi def ñoog état bi ñoog état bi ñoog état bi ñoog état bi ba état bi samp ko ba pare créer ci biir société nationale loterie nationale ay daayira daayira su ziyaar jotee wala yu mel noonu yooyu nit ñi di dem waa daayira bi jël ci xaalis bi lu takku ñoo ne sëriñ bi ñun waa daayira bi ñoo ko indi dañu ne sëriñ bi jërëjëf waay al na yàlla barkeel place ba gis nga fàtte nañ fu ñu jëlee xaalis bi gis nga li ma doon wax léegi yàlla daf ñuy moytandikuloo nit ñoo xam ne dañuy waraate di yàq lislaam noonu lañ def ba loterie nationale samp Sénégal parce que ay daayira ñoo fa nekk di joxe ji ay suukaru koor ak ay addiyaak yu mel noonu ixwatal iman sunu borom nee na sarru naas ñi gën a yées ci nit ñi man yufsidu fil ard aaye dinañ ci jànge ñoo xam ne dañuy yàq ci kaw suuf te wallahi buñ ñëwee ci aaye yi dinañ joxe ay misaal ba ngeen xam ne lu bari ci biir adduna bi dañ ko fay def pour yàq adduna mais defuñu ko pour muy jëriñ nit ñi aaya yaa ngi ñëw léegi buñ yàkkamti bi tikaabil jaraim bi sababi fasadan wa xilaak ay projet yoo xam ne dañ ko jële ONU wala ñu jële ko banque mondiale fekk dara taxul ñu indi ko financé ko ñoom ñoo nekk ci derrière seen ginnaaw loolu pour yàq adduna bi loolu kese moo tax ñu financé ko mais xoolal tey am na mbir yoo xam ne Sénégal tey Sénégal ku leen dimbali woon ci benn mbir rek Sénégal fi lay jógee ba faw yowmal qiyaamati nit ñi seen aajo yëpp day faju mooy mbay mi rek mbay mi kuñ ci dimbali woon suñ demoon ci waalo bi dimbali ñu ci ceeb bi ñu bay ko fa ñu dem Casamance dimbali ñu ci àll boobu ñu ñëw Kaolack dimbali ñu ci gerte gi ñu dem fële dimbali ñu ci dugub bi ñu dem Fuuta dimbali ñu ci boor yooyu ceebi tool yi foofu rek Sénégal jeex na say kon incha allah fii ak ay at dañuy jaay lépp ñi fi nekk dinañ dem ba kilo ceeb di jaar fukki dërëm dugub kenn dootu ko fi jënd dañ koy maye ak mboq ay sableeg waxi noppi parce que dafay late parce que suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi mais dañuy ñëw fekk ñun lii lañ soxla nañ ñu dimbali ci lii ñi ñuy dimbali ci lan tabax stade tabax foyer tabax dimbali ñu dimbali ci ay ay mayo ay mayo may nañ leen deux cent paires mayo ak quatre cent cinquante ballon ak paire godaas loolu pour la la wala indi nañ leen conteneur capote mosoo ko gis stade bi yàgg-yàgg dañ fi organiser soirée ku ñëw jënd ticket ñu may la ñetti capote stade bi bi bi ah bi soirée dañuy organiser soirée fii fii stade bi laa wax de waxuma beneen bii bii boo jëndee bii ñu jox la ñetti capote waa Malboro dañuy ñëw samp fi di maye di maye Malboro nit ñi raa ñuy maye mosoo leen ko gis fii waay waay stade du ma leen jox feneen fii chaque année day ñëw fii ne fi une semaine di may cigarette cigarette ba njëriñ la am ñaata société cigarette ñoo nekk Sénégal te cigarette dañ ko tere ci àddina bi da ngay dégg journée ñu ne journée mondiale sans tabac ñu ne la cigarette day rey 10 millions par an loolu malakal moo di sax du ko rey 10 millions cigarette di ko rey ci ay nit ñu tabax ci ay société di ko financé lan yàlla dafa sutura pour yàq njur pour yàq mbay pour yàq pour yàq ñetteel mooy qawlu rajuli yaalamu llah wa yushhidu llaha yactabiru yaminan falyahzaru lmuminina an yaqulu zalik wa huwa yaalamu min nafsihi annahu kaazib nee nañu moytandiku nit ñi nga xam ne dañuy wax di waat foo gis kuy wax naan billahi mooy tukkuliku di jéem a wane ne man lii may wax maa ngi koy maa ngi koy seedeel yàlla yàlla nee na mooy tundikul ku mel nii bëri waat jaaykat buy waat doomu aadama buy waat guddeeg bëccëg foo ko gis billaay wallaay rek mooy tundiku leen ko ndax li muy wax wóor na ko wóor na yàlla moom xam ne dafay fen ñeenteel iza qiila lil mumin ittaqillah yajibu alayhi an la yaxdaba buñ ne la ne ragalal yàlla jaru ngay mer jullit suñ ko ne ragalal yàlla warul mer lu tax waroo mer mais tey boo nee nit ñi ku demoon ba ci président Macky Sall mu recevoir la ngeen ñëw toog nga ne ko président xam nga lu ma indi mu ne ah nga ne ko damaa bëgg nga ragal yàlla wala nga res benn benn xalifa général tey ci xalifa diine yi rëpp nga recevoir la ngeen toog ngeen ko sëriñ bi xam nga lu ma indi mu ne ah nga ne ko damaa bëgg nga ragal yàlla dañ lay dóor saal bi doo génn pourtant wax nañ ko yonent bi de te dara xewul yàlla wax na yonent bi yaa ayyuhan nabi ittaqillah e yow yonent mu ne ah mu ne ko ragalal yàlla xanaa ragalul yàlla yonent bi ragalul yàlla mais terewul yàlla ne ko ragal ma tey soo ko waxee kilifa yi ñu mer man mu naan ma ragalal yàlla man man yow yaay kan ba kenn du la ko wax man anta wax nañ ko yonent bi kon buñ la nee ragalal yàlla seetal li tax ñu wax la ko ah ragalal yàlla nga ni lan laa def dafa am benn buur ci Égypte ngeen ñaanal tey frères yi tey ak suba la ñuy def seen vote pour changer Égypte mu nekk état islamique ñooñu raw nañu tey ak suba dañ leen ñaanal ñu changé Égypte bu Égypte changé adduna bi day changé parce que ña fa nekk pendant quartu siècle amul lu ñu leen deful ci kaw suuf mais terewul ñu ne keng di samp kàddu yàlla rey nañ tëj nañ dóor nañ dagg nañ damm nañ terewul gars yi taxaw rek lu nekk def nañ leen ko ci kaw suuf lu nekk lu nekk loo xalaat rek lu bon lu ne def nañ leen ko tëj nañ nit sax ci kaso indi sa jabar futti ko ba mu set di séeg moom sa kanam nga nekk ci kaso bi di xool jël nañ xaj sax séyloo ko ak seen seeni jabar yi wala ñu séyloo ko góor ñi def nañ leen ko terewul tey loolu ñu bëggoon fii ak ay waxtu yu néew yàlla dina leen ko may moo tax liggéey l'islam moo am importance mooy garab gi jëmbatal rek kañ lay màgg kañ lay am fruit ndax di nga ci lekk wala doo ci lekk sa yoon bu mu ci nekk jëmbatal rek yow ñun nag xam nga lu ñu luy suñ problème garab gi comme du ma ci lekk sama yoon nekku ci non Omar Ibnul Khattab benn waaye da ko romb muy jëmbat garabu tàndarma xam ngeen garabu tàndarma boo ko jëmbatee dina toog téeméeri at doo yow doo ci lekk garabu tàndarma man bu ma ko jëmbatoon du ma ci lekk waa ji romb Omar muy jëmbat waa ji ne ko waa Omar yow lii de xam nga ne doo ci lekk mu ne ko samay baay dañ ma jëmbataloon may jëmbatal samay doom loolu mooy islam mooy ñun dañu war a ñëw pour samp première paire suñuy doom ñëw eggali mbir mi. mais ñun bu ñu ñëwee defuñu dara ñii bu ñu màggee ay rappeur la ñuy nekk ak ay simbakat loolu bu yeboo ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel ñun bu ñu deful dara ci terrain bi ñun ñëpp suñu doom yi. ay disco ak ay disquette la ñuy nekk ci mag foog ñu ñëw samp dara ñoom ñu ñëw yeggali mbokk yi kon sunu borom subhanahu wa taala moo ñuy moytandikuloo gaa yu mel noonu yàlla mu nañu nit buñ ko nee ragalal yàlla yajibu alayhi an laa yardaba da war ci moom mooy bu mu mer aw yukrah min amrihi bi taqwa bal alayhi an yaatarifa bi zambihi wa yastaghfirullah bul mer bul ñëkkal kanam buñ la nee ragalal yàlla bul ñëkkal kanam bul mer yëgal ne dañoo bëgg nga yokk moo tax ñu ne la ragalal yàlla bu njëkk ba ragalal yàlla day defar Omar ibnu Abdul Aziz bi mu nekkee njiitu jullit ñi dafa nommé woon benn ministre boo xam ne lan mooy fonction am mooy bu amir bi toogee nii mu toog ci ginnaawam bu amir bi toogee nii toog jàkkaarloog peuple bi ministre boobu fii lay toog ci ginnaaw mu ngi tudd Omar ibnu Muhajir day jekki-jekki rek daan ne nii loxo ndeyjoor bi ci ginnaaw amir bi zip ci doq bi xëcc gësam ko bu gestoo mu ne ko ragalal yàlla de ragalal yàlla loolu lañ koy kooku loolu rek la koy fàttali ragalal yàlla de ragalal yàlla moo taxoon seen société baax parce que lépp looy def yaa ngi ciy xalaat yàlla mais ñun xoolal ban problème ngeen am tey ay audit lu ñuy audité ay lan ay lan ay milliards yu réer Sénégal ak ay oto kenn xamul gis ngeen parce que ñàkk ragal yàlla moo tax jël alalu xeet wi pasar pasaree ko yàqate ko ba Séné ak Sénégal ni mu ndóolee ñii di feebar duñu faju ñi amuñu fu ñu dëkk ñii allahu akbar nga gis benn waaye bu nekk boo xam ne dégg naa li benn politicien wax allahu alam yàlla moo xam dëgg la wala du dëgg nee na gaa yi yóbbuñu xaalis ci banque yi mais dañu gas ay coffre fort ci seeni biiri kër ay fosse climatisé ko def ci xaalis bi parce que bu ñu ko yóbbee banque dañu ay feeñ ni xaalis yi mu ne mu ngi ci ay fosse yoo xam dañ ko defar ba mu rafet karole ko climatisé ko pour billet yi du wow du yàqu yàlla moo xam mais loolu bu dee dëgg la ñu xam ne kon réew mi saye nit ñi duñu baax bu fekk koofal mu profito loolu la ñuy wax moo tax bu ñuy fal nañ fal ñu ragal yàlla ku ragal ñu ragal yàlla bu mu falee député yu ragal yàlla ministre yu ragal yàlla sénateur yu ragal yàlla président bu ragal yàlla mbokk yi dëkk bi danañ dem ba tëj kaso yi buñ la nee ragalal yàlla xoolal li nga def nga jéggul say bakkaar yàlla jéggal la juróomeel mooy at targhib fil jihaadi bi nafs yàlla mu ngi ñuy soññ pour ñuy jihaad suñ nee jihaad am na ñaari déggin jihaad ci sa alal jihaad ci sa bakkan sa deret jihaad ak sa bànneexu bakkan jihaad ci sa alal mooy nga poñe sa bakkan di génn ci sa alal di ko def ci yoonu yàlla sa deret mooy taxawal doxal waxal bu jaree dee nga dee ci yoonu yàlla subhanahu wa taala ba lu la ciy fekk fekk la ci bul yàq ndax yàlla nee na yàqkat yi mbokk seytaane lañ te seytaane safara la jëm innal mubazirin kaanu min ixwaani shaytaan wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuura kulu wasrabu wala tusrifu inna allaha la yuhibbul yàq yàlla daf koy tere kon mbokk yi juróomi mbir yi moom la ñuy jëlee ci ñeenti aaya yi ñu war a jël tey insha allah audu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو علد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم wala bi'sa almihaad wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa mardati llah wallahu raufum bil ibaad yaqulu jalla wa ala buur bi nee na wa min annaas mu ne am na ci nit ñi du ñëpp nag mais am na ci benn kuréel benn mbooloo ñoo xam ne man koo xam ne yujibu ko dina la yéem lool qawluhu waxam am na ci nit ñi ñoo xam ne laa ilaha illa allah ay bu ñu taxawee ci kanamu télé bi wala rajo bi wala kanamu micro ba def seen discours loo jàppoon di nga ko fe di nga di nga ko bàyyi fekki leen loo bëggoon def di nga ko bàyyi seen wax ci niñ koy neexale niñ koy taarale xoolal rek waa ju taxaw naan in bu ngeen ma falee dinaa leen defal ay machines yoo xam ne da ngay ñëw rek maafe bi pare nga lekk dem dinaa leen defal ay robinet caakiri nit ñi di yuux ana loolu am ngeen gis ngeen ko ana seen robinet maafe yi ñu leen digoon ñoo leen defar ay la ilaha illallah ah usine avion xoolal loolu lu mu grave ba nit ñi wóolu la moo tax alxuraan rek mooy dëgg yàgg nañ wax ne nit ñi bu ñu jàngal alxuraan rek alku alxuraan moo ñuy moo ñuy moo ñuy leeralal nit ñi buñ jàngulee alxuraan nag lu muy tekki mooy ku ñëw mooy loolu waa xabaar jalgati di wax naan bu ngeen ma falee dinaa leen defal ay micro yoo xam ne da ngay ŋàng rek wax ji di dem ngeen dem xëy suba dem dem sànni ji seeni carte yàlla moo ñuy moo ñuy orienté alxuraan mooy orienté jullit soo soo dégloo alxuraan rek wallahi kenn du la nax képp kuy jàng alxuraan di ko déglu kenn du ko nax ci kaw suuf ak ku mu mën a doon waa ji bu fekkee na génnee Sorbonne na gé- na am diplôme bu nekk parce que bu leen bu leen fàtte ne ñii di leen nax dañ leen formé da ngay dégg ñu ne docteur en docteur en wala docteur science politique kooku jàngul lu ñuy defaree avion jàngul lu ñuy defaree puso jàngul lu ñuy defaree oto jàngul lu ñuy tabaxee jàngul lu ñuy tracé tool jàngul lu xam nga lu mu jàng lu ñuy naxee ay nit docteur en science politique lu ñuy naxee nit ñi rek la jàng lu munta nekk nu muy waxee ba mu nekk moo tax politiciens yi bu ñuy yónni benn nit ci sëriñ yi dañuy yónni ku mën a wax ñoon naan yaa ñaanoon daaw mu taw yow yéen yéen a yor mbir mi ree sëriñ bi naan nii la koy nag macha allah macha allah fekk waa ji li muy wax gëmul ci dara dara du dëgg mais dafa bëgg rek sëñ bi bu fekkoon dafa mer bëgg a wax dara du ko wax loolu rek ngay gis ci suñu politiciens yi noonu la ñu def ci kanamu sëriñ yi yéen nangam peut yéen a fi toogal yàlla fi mu nekk nii yàlla bu doon ñëw ci yéen lay ñëw ah wala fekk waa ji moo gën a xam ne kii ib- iblis bu doon ñëw sax du ñëw ci moom waxuma la ak yàlla na yàlla dafa sutura wa min annaas am na ci nit ñi man koo xam ne yujibu ko da la yéem xawluhu waxam fil xayaati dunia ci dund adduna bi su waxee rek ci programme adduna moo tax yàlla waxul alaxira lan la yàlla wax aaya yaa ngi leen xool leen ko lu mu wax wa min annaasi man yujibuka qawluhu fi lxayaati dunia waxul alaxira yoo xam ne alaxira xam fa dara mais comme dund adduna ngeen nekk te ci adduna la la bëgg a nax mu ne yàlla mu ne fi lxayaati dunia ci dund adduna bu ñëwee di la ne man bu ngeen ma fale incha allah dinaa leen tabaxal usine gerte caaf gars yi di yuux fii dinaa ko def ah am na fi benn waay bu doon wax l'an 2000 Sénégal c'est là comme Paris gay naan waay l'an 2000 Sénégal c'est là comme Paris ñëpp di yuux l'an 2000 kañ la woon passé na wala ñëwagul Sénégal mel na comme Paris ah gis nga ah. wala mooy lii la yàlla luy wax fil hayaati dunia dañuy nax fekk dara amu ci léegi nag nit ñi est-ce que gëmoon nañ ko wala gëmuñu ko gëmoon nañ bu soobee yàlla en 2000 da ngay gis ay oto oto yoo xam ne dañuy naaw am ay laa fin fin ay oto nga gis nit ñi gëm ko ay oto yi naaw xoolal xoolal xoolal gént yooyu rek ndeysaan ay nit ñu leen di nax ay jullit ñu leen di nax chaque jour ñu nax ñu chaque jour ci lañ dëkk sëriñ yi dañuy naxe politiciens yi naxe waaw li waa ji wax wax na dëgg nee na Sénégal benn nag bu bu fees dell ak soow la nag bu jigéen bu fees dell soow nee na nag bi dafa soxor kenn mënulu ko dara waaye sëriñ yi ñoo ko jat ba jàpp ko nguur gi ratt soow si bu ñu paree ñu séddoo wax na dëgg misaal bu bu bu am importance la bu wax dëgg nag bu soxor la bu fees dell ak soow mais kenn mënulu ko dara mais sëriñ yi ñoo ñëw di ko jat ba jàpp ko ñett ko nguur gi ñëw di di ratt siwa soow yi bu ñu amee fukki spaan ku nekk jël juróom ñu séddoo ko wala maleti xaalis yi fan lañ koy yóbbu 4x4 yi kan lañ koy yóbbu Abdoulaye Wade Macky Sall bi mu yéegee léegi oto yi mu doon nangu si fan la ko nangu ji yéen kër la ko nangu ji wax leen ko wala ngeen ragal waaw waaw mu ngoog qul alxaq xaqun alxaqu min rabbika dëgg yàllaa ko moom nañ wax dëgg bi ma ni kenn ñëwul sama kër nangu oto kenn ñëwul seen kër nangu oto fan lañ dem ah waaw lu tax ñu leen di jox oto parce que dañoo noppi ci li yàlla bëgg kese jeex na jox leen ko ñi ko bañ ñëpp kenn joxuñu leen ko am na ñoo xam ne ñu ngi fi demee kenn joxu leen ko kon wax jaa ngi noonu yàlla moo ñu koy wax yàlla moo bëgg ñu toxoñu suñu bët yi di gis suñu nopp yi di dégg ñu xam li yàlla bëgg ñu nekk ci li yàlla tere ñu bàyyi alxuraan nag mooy li nga xam ne mooy tax ñu toxoñu ñun suñu borom subhaanahu wa taala mu ne kooku di def loolu di nax nit ñi ci àdduna di taaral ay projet di taaral ay wax di neexal di def lu nekk wa yushhidu allah ala ma fi qalbihi yenn saa yi sax muy seedeel yàlla li nekk ci xolam mu jaral ko mu waat ida tahaddasa fi umuri dunia wa yushhidu allah day seedeel yàlla yenn saa yi nga dégg mu ne wallahi billahi non je suis croyant dama gëm comme yéen fekk doo ko gis ci jàkka ji te neen daa gëm muy seedeel yàlla li nekk ci xolam te moom wa huwa aladdul xisaam ku tar la ci werante aladd aqwa alxusuma sadiduha ku tar la ci werante ak sunu borom subhanahu wa taala lan ngeen di xam ne ak mbonam ne moom gëmul yàlla iza tawalla bu doxee wane ginnaaw iza tawalla bu wanee ginnaaw bu defee discours am ba wan leen ginnaaw ba dellu ci ay kilifaam saa nga gis ko mu dox fil ard ci suuf li yufsida fiha ngir mu yàq suuf si waaw day wax ba ñu fal ko bu ñëwee li muy njëkk a def terrain bi nga xam ne mu ngi ci koñ bi gars yi di xalaat jàkk mu ñëw dóor fa benn foyer de jeunes fexe ba paayeeg jeunes yi xeex mu faral jeunes it daan ne leen bàyyi la ma dóoral fi benn foyer jàkk yi bëri nañ ci dëkk bi commencé di may ay sabar ay ndaw rabin li yufsida fil ard commencé dagg filaawo yi ci géej gi samp ay kabaan góor ñi jigéen ñi di génn sorti oto buy dem bu ne ñu jox la conteneur kàppo di yóbbaaleel moytu leen sida sida baaxul ma jox leen misaal équipe nationale Sénégal bi muy footballi coupe d'Afrique lan lañ leen may cadeau pour ñu dem ay kapot jabaru président bi mu leen seetee kapot la leen may yéen yëgu leen loolu allahu akbar moo tax bañ fa demee ndeysaan comme dañoo salte dañoo takk sobe amuñu sax niil ah oui dama leen di wax li am niil sax amuñu ko parce que dañoo sobe ñaata match lañ football ñaata defet niil sax amuñu ko dañoo tax dañoo fees del sobe jabaru président bi mu leen di tàggu ji kapoot la leen yóbbul ne leen moytu leen foofu Afrique langam la dafa bëri sida loolu mooy lan mais dem leen ngeen njaaloo ci ku la jox sida rek ku la jox kapoot rek mooy def leen nga njaaloo ci te kapoot dañ koy indi ci école yi di defal xale yi thème de formation di leen ko may aspirine duñ ko maye aspirine paracetamol kenn du ko maye Sénégal pharmacie bi gën a tuuti boo fa demoon ne pharmacien bi sama bopp day metti du la may paracetamol te boo ko ñaanee capote mu may la wala journée mondiale de la sida noonu la di sida dañuy maye capote mais kenn du maye journée mondiale sibbiru kenn du maye paracetamol de kii ne le Brésil ay hélicoptère ñooy naaw di sànni capote yi pour nit ñi di jël loolu mooy lan est-ce que hélicoptère yi naaw nañ di sànni paquet paracetamol yi non gis nga kon nañu xam ne am na ñoo xam ne seen seen dund ci kaw suuf mooy yàq te dañ naan la ñun dañuy defar mais bu ñu wanee ginnaaw bu ñu waxee ba pare wane ginnaaw rek nga xam ne ñii dañuy yàq planning familial ñu ngi ñëw ci léegi aaya bi ci kanam di ngeen xam ne dañuy yàq sunu borom mu ne li yufsida fil ard ngir yàq suuf wa iza tawalla bu ñu wanee ginnaaw saa ñu dox fil ard ci suuf li yufsida fiiha ngir ñu yàq suuf si nan lañ koy yàqee wa yuhlikal xars ñu yàq mbay mi ñu alak ko mbay ci Sénégal suuf si baaxatul du ko yàq engrais bi ñuy jox sunu maam yi bi mu fi nekkee engrais amul woon Sénégal moo nekkoon ñaata puissance ci ci gerte yéen ñi jàng français deuxième puissance mondiale gerte ñu jël tool yi yàqate ko yàq mbay mi kenn xamul li ñuy bay lépp yàqu li gën a dee mooy soble bi ñuy bay Sénégal du soble boobu la ñuy lekk France d'accord ngeen mboq bi ñuy lekk Sénégal kenn du ko lekk États-Unis sunu mboq bi ñuy lekk fii fas yi ñoo koy lekk ak mbaam yi États-Unis d'Amérique ceeb bi ñuy lekk fii fas yi ak mbaam yi ñoo koy lekk te ñun ñu koy jox ñu jël sunu produit yu baax yi yóbbu di ñu jox yu bon yi ba ci géej gi da ngay dégg ñu ne jën yi kenn du ko lekk Sénégal te fii dañ koy nappee kon li ñu yàlla wax ne dañuy yàq suuf même mbay mi dañ koy yàq dañuy ñëw fekk ñii suuf si ni mu baaxee ñu yàq suuf si pour ñoom xam nga lu tax ñu koy yàq pour ñoom li ñuy am fële ñu mun ñu koo jaay. Sénégal bu ñu demee bay jënd ay mboq États-Unis te ñun ñu am suuf am espace ñuy jënd seen dugub di jënd seen ceeb di lekk seen pomme de terre di lekk seeni soble ñun mënuñu lekk suñuy bos sa bos boo ko fi bayee léegi bu toogee trois jours nëpp soble bi bu yàggee da ngay gis mu verte baaxul mais ñun moom la ñuy lekk gis nga parce que baaxul. parce que bi ñu indil baaxul dafa am loo xam ne réalité yoo xam ne foog ñu nangu ko alxuraan mooy wax ak ñun pour ñu nekk ay nit yàlla duñ la ne du la ne subhanahu wa taala li yufsida fiha pour ñu yàq suuf rek nga yaakaar ne yàq suuf mooy ñëw daal di gas benn foos këpp ko fii déedéet yàlla wees na di wax ay yàq suuf mooy jël benn porsambre këpp ko ci suuf si déedéet yàq suuf mooy nga ñëw fekk suuf si ni mu doon jëriñee jullit yi nga fexe ba jullit yi pauvre yàqate ko waaye wa yuhlikal xars di alak mbay mi alak mbay mi waaw alak ko dem indi yeneen grain wala nga def ci ay engrais yoo xam ne suuf si dootul amati njëriñ loo fi bay day dee duñ jëmuñ ci de wan nasal ak njur mi njur dañuy yàq njur mi xoolal njuru léegi su yàlla ne dañuy yàq suuf si yàq mbay mi yàq njur mi nit ñi lan lañ war a déggee ci yàq njur lan mooy sunu commentaire ci li yàlla wax ñu dañuy yàq suuf si yàq mbay mi yàq njur mi soo nekkee ci dëkk ñu yàq ñetti ñii dëkk ba fu mu jëm bu ñu yàqee suuf si yàq tool yi yàq njur mi xoolal njur mi tey nit ñi dañuy produire rek di jur am na xale yoo xam dañuy rëcc juddu da ngay gis 16 ans bu ëmb loolu mooy nit ñi di jur comme ça amatul sëy ñaata doomu njaaloo la ñuy ngénte par jour loolu mooy yàq njur parce que dañ ko war a organiser nit am jabar ah di nekk ak moom ci anam yu normal soxna si ëmb ñu koy toppatoo ba mu am doom ñoom ñaar ñu yar doom jooju mais bu fekkee feew feew feew feew feew ngay dajeeg ay xale ci mbedd mi amuñu papa amuñu yaay journée mondiale de lan fan yi la doon journée mondiale de la de des enfants du barki démb la woon télé bi dem ci mbedd yi gis ay xale ci booru géej amuñu ndey amuñu baay kenn xamul fu ñu jógee kon yow sa papa ak sa yaay fu ñu nekk mu ne wuu fukki at gisuma sama papa ak sama yaay ñooñu dañoo rëcc ci juddu parce que programme tubaab bi la moo tax gis nga kooku ku kuy kuy kuy kuy léegi li mu wax kuy xalaat doomam bu am 15 ans ëmb muy xalaat ci loolu ki jël 11 ans ne ko danduma ki am 11 ans ci deux ay 2 mois 3 mois loolu mooy li xew léegi ci mbedd yi parce que école yi lu bon lañ fay jàngalee ah sol col gu bon xale yi dañuy ñëw école seen ween yeeg seen lépp nekk ci biti ñuy jàkkaarle xale yu góor yi entre élèves élèves nga gis xale yu góor yi tamit génn seen i silib yi xale jigéen yi génn seen silib yi génn seen ween yi eh sëñ bi këriñ du jaaru këriñ du jaaru jàng amatul amatul formation da ngay dégg ñu ne semaine lan semaine culturelle semaine boo xam ne musique fecc way rek xale jigéen dem va et vient di ñëwaat ñu ne loolu dinañ jàng ba pare boole ci di may ay capote ci école yi drogue bi ci école yi yam xoolal gun yi ni ñu bëree léegi ak ak góor jigéen yi ci école yi moo tax yàlla subhanahu wa taala lim ñuy wax bu ñu ko déggulee fii la ñuy continuer rek nekk ci musiba foog ñuy yeewu nekk ay julit alxuraan dafa ñëw pour di ñu orienter yàlla du ñëw nañu ay nit a ngi fi yoo xam ne dañuy yàq suuf yàq mbay mi yàq njur mi ñu defe ne yàq njur mooy ah rey ay xar ak ay nag yàq suuf si mooy jël ay doomu taal këpp ci suuf si yàq tool yi mooy nag yi ñëw lekk yàlla dépassé na loolu loolu accident la ay nag yu dugg ci tool lekk accident la loolu du yàq parce que loolu du yàq suuf si suuf si li koy yàq mooy ñu fexe ba suuf si dootul jurati Sénégal nekkoon deuxième puissance mondiale ci gerte tey Sénégal mënuñu fi am juróomi kilo gerte yu mat loolu mooy yàq nit ñi di judd nii kenn xamul amul contrôle ku mu neex judd ñu dem ba caag ñu ne nit ñi dañoo bari sax léegi nañ leen wàññi te balaa ngay xam ne gars yi dañuy yàq léeg-léeg États-Unis d'Amérique wala France wala Angleterre ñu jël gerte wala ñu jël mboq ay ay ay toni toni toni ton ñu dem dugal ko ci biir géej gi këpp ko te nit ñi di xiif soo leen ne lii nag ñu ne noonu lii bu ñu ko indee ci marché mondial bi marché bi day daanu prix bi day daanu wala ñu jël ay bërigo pétrole këpp ko ci géej gi soo leen ne lii nag ñu ne non bu ñu ko indee ci géej bi kon pétrole bi day daanu nañ ko bàyyi ni quoi dañuy dañuy lan équilibrer marché bi quoi xoolal te nit ñaa ngi nii di xiif bu ngeen gëmee ne géej gi ñu ngi ciy sotti ay conteneurs yi sunguf meew saak diwlin pétrole mboq ceeb ay toni ton avion boo xam ne ëpp na Sénégal wala bu kii bato boo xam ne bato bi mun nga ci yeb waa Dakar yëpp dañ koy yeb ba mu fees mu dem këppi ko ci biir géej gi nit ñi toog amoon nga ci xarit bu ci doon liggéey mu nga lu ñu leen wax fii rek wallahi dégg ngeen nee na boo ko ci defee aigu bi day weex taal meew wallahi li ñu leen di wax fi dañ ci am yaqin am ci preuve dama ne ñun ñoo bañ a yeewu mais tubaab bi suñu kaw la ñuy dund te dañ ñoo nar a alak dañ ñoo nar a rey mais comme ñun nanguñu nekk ay nit nanguwuñu nite nanguwuñu topp suñu boroom nanguwuñu fexe kàddu yàlla mu samp li yàlla di bañ ci kaw suuf si ñu teggi ko fi nan nga mën a gëmee ay nit di dee xiif ñuy sànni dund bi ci biir géej gi naan dañu bëgg a banque équi bi dund gi équilibré pour marché bi bañ a daanu pour lan saag bi jar ñaari junni na jar ñaari junni rek xam nañ bu bëree affaire bi day wàcc prix bi day waaw pour saag bi ne nekk ñaari junni rek bu mus a wàcc parce que bu bëree rek léegi mu dem kilo téeméer moo tax léegi na jar ñaari junni rek na jar ñaari junni ki ko mën a jënd baax na ki ko mënul jënd affaire am la mais ñoom duñ ko indi fii xaalis bi di di di di di kii gis nga loolu mooy sunu problème ixwatal iman sunu borom subhanahu wa taala mu ne wallahu yàlla mu ngi dax joxe déclaration wax na leen démb ne moom yàlla laa yuhibbul fasaad bëggul yàq li leer na yàlla bëggul yàq yàlla lan la wax yaxya yàlla lan la wax yaxya man yàlla bëgguma yàq wala tufsidu fil ard baada islahiha wala tufsidu fil ard baada islahiha bu leen yàq suuf ginnaaw ba ma ko defaree man yàlla ñoom ñu ñëw di yàq suuf si sunu borom mu ne wa isa qiila lahu waa jooju di def loolu yor projet yooyu di yàq wa isa qiila lahu bu ñu ko waxee ittaqillah ragalal yàlla axazathu jàpp ko al izzatu rëy ndeysaan ah looloo fi bëri tey tey soo nee njiit yi ragal leen yàlla nga gis même kilifa diine yi tey kuñ ci recevoir oon nga ni cheikh bi man de li ma indi rek mooy dama bëgg nga ragal yàlla ci taalibe yi laa ilaha illallah yow de doo génn doo génn kër ga de te yow ndeysaan lislaama la yóbbu waaye lan nga ni ko ragalal yàlla tey baatu ragalal yàlla dem nañ ba ñemewuñ ko wax ay nit ñemewuñ ko wax président ñemewuñ ko wax ministre yi ñemewuñ ko wax député yi ñemewuñ ko wax sax commissaire tey ku commissaire woowoon bureau nga ni ko commissaire ragalal yàlla mu ne dóoraleen ma ko ci giri bi gars yi ne la yaa tooñ en tant que commissaire nga naan ko ragalal yàlla inna lillahi commissaire mooy kan ba kenn du ko ragalal yàlla ku gën a mbàgg commissaire ñu ne ko ragalal yàlla muy muhammad yàlla ne ko yaa ayyuhan nabi ittaqillah yonent bi daal di tiit daal di bijjaaw ndax baat boobu ni mu réyee ku toll na yàlla ne ko moytuma moytuma yonent bi tiit bijjaaw fii mu xëy rek weex tal abubakar day xëcc bijjaaw bi ndeysaan gis mu weex mu ne ko yonent lii nag mu ne ko shayyabat nii xuudun wa axawaatuha saaru xuud ak ay mbokkam ñoo ma tiitloo ba ma bijjaaw lan la ko yàlla wax ci saaru xuud ba yonent bi tiit bijjaaw fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tatagaw innahu bima taamaluuna basir mani yonent fastaqim jubal xocc kama umirta comme ni ma la ko digale man yàlla allahu akbar xoolal baat ba ku toll na yàlla ne yonent bi jubal xocc comme ni ma la ko digalee waxuma ni ma la neexe de comme ni ma la ko sante kama umirta eh wala tatagaw bul beew bul jàdd bul dëng innahu bima taamaluna basir li ngeen di def maa ngi ci teg sama gis-gis man yàlla yonent bi daal di tiit bi jaaw parce que lu tax dafa xam kii wax ak moom ñun tey koo ne ragalal yàlla mu gis boppam ñu dem ba Sénégal ñëwewuñ ñu wax nit ñi ragal leen yàlla am naa benn parent d'élève boo xam ne daf maa ak si histoire parce que doomam buy jàngee jardin moo ne ko papa ragalal yàlla mu ñëw ne non xale bi li ngeen koy jàngal c'est trop eh te yoo xam man semaine bi ne ma ragalal yàlla non non non non doucement doucement eh eh parce que xale bi ne na ko papa ragalal yàlla ndeysaan moom mu gis mu gis ne waruñu ko wax loolu léegi dafa am ñu ñu war a wax ragal leen yàlla am ñoo xam ne kenn waru leen koo wax waaw waaw boo nee ni ndeysaan noonu lañ ko jàppee soo nee ni ragalal yàlla mu jàpp ne da nga ko ne waxoo dëgg gëmoo yàlla doo jullit yaa ayyuhan nabi ittaqillah allahu akbar yaa ayyuhan nabi ey yow sama yonent mu ne ah mu ne ko ragalal yàlla ittaqillah saar la ci yàlla wàcc tudde ko yonent bi te ndénkaane ba muy ndénkaane yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy ragal leen yàlla an ittaqullah ragal leen yàlla mbokk yi bu nit ñi ragalee yàlla dëkk bi jub bu nit ñi ragaloon yàlla jàkk ji mun nañ ko bàyyee nii dem ñibbi wala bagage yëpp mun nañ ko fi bàyyi waaye est-ce que ñeme nañ ko tey parce que kenn ragalul yàlla waaw ragaluñu yàlla loolu moo tax dëkk bi yàqu sunu borom subhanahu wa taala nee na gaa yi boo leen waxee isa qila lahu buñ ne waa jooju yor projet bu bon boobu bëgg a yàq société bi ndax koppor yu ko tubaab yi dik yahud yeeg nasaraan yi ne ko demal nga yàq sa réew su ñëwee waa réew mi ne ko ragalal yàlla axazatuhu jàpp ko moom waa jooju al izzatu ngand ngandlu fëgg dënnam waaw di jéem a rëy rëylu di wane ne moom pourquoi ñu naan ko ragalal yàlla moom muy doomu diw ak diw moomu am diplôme mu sàngam moom man su ma ragalul yàlla kan mooy ragal yàlla ah loolu ngay dégg ñuy wax axasathu jàpp waa ji al izzatu ngand ngandlu wala du loolu moo nekk seen téere yi bil ismi ci bakkaar rek yàlla ne fa xasbuhu doy na waa jooju jahannamu safara jahannama laa ko jëme ëllëg képp kuñ ne ragalal yàlla nga bañ wala ngay ngand ngandlu yàlla nee na jahannama moo lay xaar wala bi sa bonn almihaadu lal ba te mooy safara sunu borom subhanahu wa taala mu bàyyi aaya boobu mu ñëw ci beneen aaya bu yéeme aaya sacrifice aaya engagement bu jullit yi manqué tey jullit ñi li ñu manqué tey seen dund mooy engagé wu mbokk yi ñun ñii rek ñun ñii ci biir jàkka ji ñun kese waxuma ñeneen ñi ñëwul ñun rek fii bu ñu engagé woon ci l'islam rek fii ak 6 mois ñu tas l'islam ci biir géejawaay ñun ñii ñun ñii ñun ñii rek bu ñu engagé wu woon ñu pare pour jox suñu bopp yàlla fii ak 6 mois géejawaay yëngatu waaye ndeysaan engagé wuñu ñun lan mooy suñu engagement samedi talaata àllarba dars jeex na mais engagé wuñ pour nekk ay soldaaru l'islam pour dem ba jeex pour jox yàlla suñu bopp aaya bii yàlla di ñu wax nii mu nekk suñu kanam mu nekk aaya 207 sëcce set bi dafa wàcc ci benn waaye bu tudd soxayibu soxayibu ibnu sinan ar rumi benn romain bu tudd soxayibu soxayib dafa takk ay bagaasam gàddu xeejam fettkat la woon flèchekat mu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàgguwa war a bàyyeekoo Màkka jëm Médine ba mu demee ba ci diggu yoon bi fa iza al mushrikuun bokkaalekat yi koj ko yéeféer yi Màkka lamma alimu bi annahu sa yuhaajir ila al madina ba ñu xamee day gàddaay jëm Madina ñu daal di koy koj fi mu war a jaar lan lañ ko wax doo fi bouger de doo génn màkk illa iza aataytana maalak lu dul sa alal ji nga am bi ngay jóge ruum di ñëw màkk indi woo fi tus nga ñëw nekk fi ngandum commerçant nga bëgg fay jóge yóbbaale xaalis bi doo fi bouger da nga bëgg dem Médine fii doo fi bouger leer lañ la wax xaalis bi teg ko fi ndeysaan lan la waa ji def fekk xaalis bi bi muy jóg ci digg néegam fi mu fi mu fi mu dëkk dafa gas digg néeg bi ba mu xóot toj dër bi gas digg néeg ba mu xóot daal ci dugal xaalis bi suul ko dem yoonam mu ne xaalis bi da ngeen bëgg ñu ne waaw mu ne leen de laa leen yégal bu dee da ngeen maa bëgg a rey di ngeen ma rey de waaye balaa ngeen maa rey sama flèche yi dina jeex parce que xam ngeen ne man du ma moy te mbaq mi bëri na trop ay flèche balaa ngeen may rey moom xam naa ne genn wàll gi ci yéen dinaa leen jeexal ñu ne ko non ñun soxlawuñu xeex ak yow dañu bëgg alal ji nga yor nga wax ñu fu mu nekk bu fekkee da nga ko yor nga jox ñu ko bu dekkee yoroo ko nga wax ñu fu mu nekk ñu dem jël mu leen mu ngi ci sama néeg dem leen mu ngeen demee digg néeg bi di ngeen fekk ma gas ko ngeen gasee ba mu xóot mbuusu xaalis baa ngi fa falaa ko teg milliards yaa ngi foofu millions yaa ngi foofu dem leen ñu dem gas digg néeg bi ñu jël xaalis bi moom mu daal di continuer ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yonent bi séenee muy génn ci tool yi di jéggi garabu tàndarma yi yonent baa ngi toog seen ko muy ñëw ak poussière am ak pëndam ak coonoom ak ay xalaam yu mu gàddu fa iza bi rasul sallallahu alayhi wa sallam yubashiruhu yonent baa ngi koy bégal ne ko rabiha albayi ya aba yaxya rabiha albayi ya aba yaxya sa bénéfice bi bëri na yow aba yaxya sa commerce bi yone nga ci yore nga ci bénéfice bu baree baree bari tey ban bénéfice la am dafa jaay boppam alalu àdduna jox boppam yàlla subhanahu wa taala pour ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal di wàcc aaya bi aaya bi moom moo ko moom mooy suhaybu ibnu sinan ar-rumi sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa minan naas am na ci nit ñi sànq lan la yàlla waxoon am na ci nit ñi man yujibuka fi lxayaati dunia mu bàyyi ñooñu mu ñëw ci ñeneen ñi wa min annaas am na ci nit ñi man koo xam ne yashri dafa jaay nafsahu boppam lu tax mu jaay boppam ibtigaa amardatillah pour am ngërëmal yàlla fa jaay boppam joxe alalam lan moo tax waa ji joxe alalam pour am kontaante yàlla pour yàlla kontaan ci moom ngërëmal yàlla moo ko tax est-ce que ñun tey nangu nañu bàyyi sunu waxtu ngir am kontaante yàlla ñun ñi daje fi yëpp desitu desitu waxtu lañ jox yàlla desitu waxtu desitu waxtu da ngaa liggéey ba wàcc doog a ñëw desitu waxtu desitu waxtu desitu waxtu moo ñu tardeel yonent yàlla nuux bi ko yàlla yónnee yàlla ne ko taxawal ci sama tool bi liggéeyal ma xam nga nuux lu mu def bi mu ñëwee dafa teg benn tableau jël craie élève buy jàng boo inscrire bay jàng premier jour boo duggee classe lan lañ lay defal bi nga inscrire ba pare ba dugg classe premier jour yaa ngi maître bi ngeen daje lu ñu lay defal emploi de temps barnaamij ah isticmaalul awqaat loolu la tubaab yi naan emploi de temps barnaamij isticmaalul awqaat mooy nooy jëfandikoo heure yi ngay jànge fii nan la nga koy jëfandikoo nuux moom bi mu ñëwee teg tableau bi jël craie bi rëdd dafa ne daawtu qawmi laylan wa nahaaran maanaam damay liggéey guddi ak bëccëg su may ni alantu lahum wa asrartu lahum israaran al alan wal israar guddi ak bëccëg lu feeñ ak lu nëbb ñu yaakaar ne fii la koy yemal yàlla mu ne alfu sanatin illa xamsina aman junni at yu manqué juróom fukk mu nekk ci terrain bi junni at yu manqué juróom fukk mu nekk ci terrain bi guddi ak bëccëg boole ko guddi ak bëccëg boole ko lu feeñ ak lu nëbb lu feeñ mooy day dem ci marché yi dem ci grand place yi lu nëbb mooy day bàyyi ba nga ñibbi yenn saa yi mu rocceeku ñëw sa kër yaa ngi moom rek ragalal yàlla kay jaamu yàlla kan mooy def loolu fii ci ñun ñu góorgóorlu liggéey bii liggéeyu yàlla la yàlla daf ko samp suñuy loos foog ñu taxaw ci liggéey bi buñ ci taxawul woon ñun duñ ci jot sànq lan lañ wax ne Omar moom la doon def Omar sànq lu mu doon def da doon jëmbat ay tàndarma bi ko waa ji ne doo ci lekk lu mu ko wax samay baay ñoo ma jëmbatal may jëmbatal samay doom ñun tamit sahaaba yi bu ñu taxawul woon ci lislaam ba lislaam ñëw Sénégal est-ce que dinañ nekk ay jullit ñun buñ ci taxawul ñii ñëw ci suuf fuñ jëm suñu borom ne wa min annaas am na ci nit ñi ku mel ne Suhaybu Ruumi gaa yoo xam ne yashri dañoo jaay nafsahu seen bopp lu tax ibtigaa pour sàkku mardatillahi kontante yàlla wallahu yàlla moom raufun ku ñeewant la bil ibaadi jaam ñi yàlla dafa ñeewant jaam ñi yàlla dafa yërëm jaam ñi yàlla da leen a bëgg yabiu nafsahu lillahi taala bil jihaadi fi sabilillahi bi nafsi wa maalihi waa ji dafa jaay boppam yàlla alalam ak bakkanam lépp la joxe pour yoonu yàlla sunu borom mu ne wallahu yàlla raufun bil ibad yàlla daa yërëm jaam ñi wallahi yàlla daf ñu yërëm yonent bi saa salaam nee na yonent bi dafa gis benn waay benn jigéen bu yor doomam yonent bi laaj saxaaba yi ne leen ndaw si bu ñu bëggoon jël doom ji ne ko dugal ko ci safara si ñu ne ndaw si furno bii di booy dugal ci sa doom ji ndax dina ko def saxaaba yi ne déedéet mu ne yàlla moo gën a yërëm xale bi ak yaayam yàlla moo gën ñu gën a yërëm waaye ñun dañoo utul yërmande yàlla yal nañu yàlla jubanti mbokk yi li moo doon dar sa tey ñu ngi jéggalu suñu borom juum tey ci nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu